yaa ngi defati mbokk yi ànd ak ñun seetaan ak déglu ñu daal di amaat mbégte ba ñu delloo sant suñu borom daal di julli ci sangu-sang yi gërëm waajur yi ñaanal kilifa diine yu àdda daal di mbokk yi nga xam ne saa su bu ñu tàmbalee ñu daal di bàyyi lépp lu ñu jàppoon daal di ànd ak ñun ñu dee waxtaani mbir te buñ ca noppee ku ci nekk ci ñoom jéem ci bëgg am ci lenn loo xam ne xam na ko ci wàllu yi ba saa su ne bu koy jëfandikoo lu jëm ci wàllu bio mu xam naka la koy jëfandikoo mbokk tey nag dañu indi li nga xam ne moo di fauteuil de massage fauteuil de massage bi fauteuil la boo xam ni daanaka rek daf lay dimbali ci lépp loo xam ni dafay jëm ci wàllu douleur xam nga ne douleur daanaka saa bu nekkee ak nit saa su ne daf koy sonal sonal goo xam ni daanaka ci boppam day jafe lool ngir mu mën ko leerlu day jafe lool mu mën ko wax yooyu nag day doon lu sax ci yaram dëkk ca te boo ko ca bàyyee njeexital bi mën naa doon loo xam ni daf lay gàllankoor ci wàllu yëngu-yëngu loolee la xam nag moo tax ñu indi fauteuil de massage bi nga xam ne donc 4 euh, minute mille francs ngay fay pour am massage bu minute boo xam ne fauteuil bi ci boppam moom moo lay massé su dee li nga xam ne mooy 8 minutes nga bëgg 2000 ngay jox fauteuil bi ci boppam ngay ñëw rek tëdd bàyyi ko sa bopp mu tëggal la bopp bi tëggal la ko tëggin ndigg li faar yi fépp foo xam ni sentir nga euh, moo nga doon metti yow sono boo pare di nga xam ne yëg-yëg gi baax na rawatina daanaka yor na cinq mille boobaa nag vingt minutes moo la koy tëgg su paree ah nga xam ne kat la nga jël baax na kon yow mii nga xam ne am nga métit woo xam ne yaa ngi koy yëg ci ndigg gi ci faar yi ak feneen fu mën doon yow mi nga xam ne daanaka amoon nga AVC suñ borom dimbali la boo way bàyyi naay sekkal soo amee jot doxal nank ñëw tëngee Sonadis wetu pharmacie sel soo fa ñëwee ah am nañu ah, ah, ah, fauteuil de massage boo xam ne macha allah bu méngoog jamono yow mi nga xam ne jamono yaa ngi am AVC am jafe-jafe yëkkati tànk wala loxo mën nga daagu nànk euh, machine bi maase la maase goo xam ne daanaka rek yow si sa bopp di nga xam ne la nga maase yow yamuñu foofu seen cabinet Biorama indi la baume massage muy frotté boo xam ni ñoo ngi ko defaree ak ay produits bio yu naturel baume massage bi la boo xam ne baax na ci nerf sciatique arthrose ak yeneen yu ni mel lépp lu xeetoo ci wàllu métit euh, Biorama am na li nga xam ne moom moo di boobu massa yemuñu foofu am nañu complément alimentaire boo xam ni ñoo top 2 donc euh, top boobu top 20 bi nga xam ne euh, njariñ bi yaatu na lool ñaar ak tomb nga xam ne euh, saa su ne askan wi dañ koy jëfandikoo ngir mu mën la dimbali lu jëm ci wàllu douleur kon yow mi seetaan ak déglu te bëgg massage moo xam massage goo xam ni dafa jëm ci wàllu ndigg faar ak yeneen ni nu mel mën nga ñëw seet suñu si cabinet bio ma ñoo ngi tënkee ci Sonadis bi boo ñëwee ba Sonadis bi rek mooy oto yu ndaw yi rang Thiès fi ñu nekk soo ñëwee foofu am na li nga xam ne moo di pharmacie HCM boo ñëwee ba ci pharmacie soo jàddee rek am na góor gu baax ku nekk ci koñ bi di jaay am mandarine soo ko ne Biorahma laa soxla mu ne la étage bu weex bee ngay seen à droite foofu mooy cabinet Biorahma 77 244 14 05 ngeen mën ñu suivre ci TikTok bi ngeen mën ñu suivre ci YouTube bi kon partagé leen mbokk yi du ñàkk am na ci kenn koo xam ne bëgg na massage te xamul fu mu jëm su boobaa mun na daagu nank ñëw seet si ñu jaa ngeen jëf